dama koy wax yow coon lii ngay def nii mu ne ma wërsëg jeexul te boo seetloo si dernier moment yi foo ko tendre micro affaire yàlla la lay wax ak affaire diine. kon dafa mel ne dafa yëgoon dafa waajaloon boppam. xëy na parce que nit ki tamit doo ko xam tànk mi ngi dund tànk nit kaa ngi dund doo ko xam bu génnee àddina nag la ku nekk di jóg ñëpp jóg mais waxkatu dëgg xam nga nit bu mel ni coon daf fay bëriwul day wax dëgg man euh, euh, avec les arts martiaux bi may def grande nuit du tatami wala di def budo bi ci à la plage dama ko dama dama ko dama ko ragal a woo ma woo ko ne ko coot man de bëggoon naa waxuma nga ñëw def playback mais nga ñëw rek assister mu ne ma non seulement dinaa ñëw mais damay indi waal yi dégg wax jooju loolu nekk loo xam ne daf ma frappé daf ma marqué mu nekk nit koo xam ne lenn rek nag dañ naan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun xam nga boo xasee ba génn àddina moom lay ñaanal parce que loolu rek lañ la deseel te mbooloo mii nga gis ni mu takku nii yàlla dina si def yërmande parce que loolu lañ koy ñaanal yàlla teg loxoom si njabootam di massawu Waly Seck ak ay rakkam di massawu Mapenda Mapenda bi nga xam ne sama xarit la Assane Ndiaye ñooñu ñëpp damay nekk ak ñoom. coon dem na ci anam goo xam ne xëy na moo moo xam lu tax mu demee nii ndax demul feebar tëdd ñu naan anamu na jóg bu mu jóg ñun daal dañu yeewu suba teel rek ñu ne ñu coon wàcc na liggéey te loolu nekk naqar goo xam ne du ma ne sax naqar ndax yàlla li mu def moo gën. moment biñ la bi nga yegee ne coon wàcc na liggéey nu mu la def. dama doon liggéey dama doon dem RTS pour liggéey ji dama summeeku toogaat. dama toogaat parce que dama ne mënul ne